waaw kay salaamaaleykum wa rahmatulah les patriotes maa ngi nuyu di leen siyaar seen frère la Cheikh Anne ma jox leen benn information bu gàtt am solo euh, gis ngeen ne bu ngeen amee seetlu plateforme yi ngeen abonné yëpp YouTube TikTok euh, Facebook euh, Instagram lépp luy plateforme rek gis gisatoo leen seeni publication li waral loolu mooy Macky Sall dafa jël waa Israël ba pare jël alal ju bari tamit fay ko Facebook ak TikTok. ñi nga xam ne ñoo leen moom alal ju bari la génn génn pour problème troisième mandat bi problème le président Ousmane Sonko pour yéen ak yorin gu bon gi mu yor réew mi bu kenn gisati publication bi yi nga xam ne euh, page Facebook yi ñu ngi koy def plateforme yooyu ñu ngi koy def pour wone Macky Sall yorin gu bon gi mu yor Sénégal léegi nag page Facebook yi lu mel ni ANN TV lu mel ni page Facebook yu 1 million marche bu Ousmane Tounkara yu mel ni OSR Monde yu mel ni Pape Alé Niang page paas yu mel ni paasu euh, Babacar mbay paas yi jot na paas yu am solo yëpp ñoom El Malick Diomaye képp koo xam ne da bokk Pastef wala ngay patriote wala nga doon koo xam ne da ngay dénoncer pour sa réew paas yooyu noonu yëpp da ngeen di dem ngeen désabonné ba pare abonné parce que loolu mooy mën a tax nga continuer di gis lépp lu ñu publier parce que léegi bu ngeen amee seetlu yéen yëpp da ngeen abonné si paas yooyu noonu mais du ngeen di gis publication yi parce que Macky Sall dafa fay Facebook fay plateforme yooyu noonu yëpp ba pare fay waa Israël jël leen yóbbu leen Dakar ñoom ñooy nekk di di di di di di def euh, liggéey bu bon boobu noonu. léegi pour nga mën a continuer di gis publication yi nga xam ne lépp loo xamante ni rek patriotes yi ñu ngi koy publier te nga te woon si page yooyu noonu yow da ngay dem nga désabonné ba pare abonné waat su ko defee ngay continuer di gis publication yi. parce que fii ñu jëm problème mu troisième mandat bi ak problème mu euh, le président Ousmane Sonko. day bok for force for la force loolu ñuy dénoncé non mo waral ñom ñu jël alal ju bari pour euh, saboter page yoy non ba nga xamni lepp lo xamni publier publier nañ ko fa yeen doto leen ko gis kon dem leen ngeen abonné désabonné si page yi ba paré ngeen abonné waat muy TikTok ak fepp nak bu ngeen amé sellu tay da ngay da ngay gis ko xam day doon sa da ngay abonné si page am mais doto gis dara lo xam mu ngi ko publier ta page ba nga fa ba paré ya ngi abonné continuer nek liko waral moy ñom dañu def ay signal lool nak alal mo koy def parce que faw nga dem Facebook jox leen alal ju bari pour ñu mën laa defal loolu foo nga dem gis direction TikTok jox leen alal ju bari pour ñu defal loolu léegi da ngeen di abo da ngeen di désabonné si page yooyu noonu ba pare abonné waat soo désabonné rek abonné waatal su ko defee lépp lu ñu publier da ngeen ko gis incha allahu rabi le combat continuer di leen wax ne résistance résistance lépp lu ngeen xam te information jàllale leen parce que foofu la réew mi toll kenn waratul nekk di nelaw wala di toog naan yëguma li xew gars yi ngeen jëf salaamaaleykum